Pap Jibril xamna ni yow encore une fois yow lay joxat ziar bismillah jërëjëf Der euh, di ndokkeel rek sénégalais yëpp. Mhm. yi nekk si biir réew mi ak si bitim réew. mu nekkoon moment de communion moment de recueillement moment aussi d'introspection ak euh, ki nga xamante ni mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu doon fàttaliku dundam euh, ñu doon fàttaliku gane àddunaam mu nekk lu am solo mémoire dafa am solo fàttaliku aussi dafa am solo. Mm-hmm. léegi rek may def digression ma génnaat bala may ñëwaat si lii mooy bi ñuy wax Casamance léegi boo xoolee dëkk yi am guerre ba ci Rwanda bi ngay gis seen musée boo xamante ni dañ ko def. Mm-hmm. keroog seetaan naa ci documentaire bu daw yaram boo xamante ni ñi nga xamante ni ñoo fa nekk yor musée bi boo ñëwee dañ lay fàttali xale yi bu ñuy màgg di ko gis di ko fàttali ko nga xamante ni loolu ci mémoire collective bi dafa am lo xamante ni moom lay def ci ñom ba nga xamante ni ci seen bop ñoy garantir lolu nga xamante ni mooy acquis bi ñu am ba paré et je pense que loolu dafa nek jafé jafé bu mak bo xamante dañ ko am ci Afrique de l'Ouest moy que ne duñu jang ci dara ci lo xamante ni xew ba paré Sénégal fi on parle de la guerre en Casamance mais on peut aussi parler de du bateau le Joola nga mm. avons ni problème mu mémoire la ñuy am jamono bu Nous ba nga xamante ni nit ki du am lo xam da koy jakarlo ak mom mu koy fatali fi mu jógee fi mu tollu ak fi mu wara a fatali fàttaliku yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nak. valeur yoy la won moy valeur de paix valeur de pardon de transcendance parce que yonent bi sun borom moko wax ne ko dañ la wàcce pour nga nek yërmande euh, donc jamono ji nga xamanteni nak dañuy questionner sens di rapport yi ñu am mu nek ay rapport conflictuel euh, nga xamanteni ni euh, japp nañ ne cooki rek moy maye dara de part et d'autre je pense que ñu fàttalikuwaat yonent bi salaatu salaam loolu lu am solo la ñu def ko ci biir Sénégal yépp def ci ay salatu ala nabi yu bari. Mhm. jàng alquran yu bari. ñaan yàlla loolu tamit bañ a nekk rek loo xamante ni dañ koy def ni façon routinière waaye mu nekk loo xamante ni bu ñëwee dinañ ci mën def taxaw setlu jangat ci ba kenn ku ci nek am ci yobbal bo xamanteni ding ko mën démalé ba déwén té mu mussel la ba nga fexé ba nga fexé do loré waaye do lor kenn. Mhm. parce que limay setlu légui moy il y a une volonté manifeste souvent ci lor nit bañ ku la lor. so mhm. dekké di loré nak foog ñu lor la. Mhm. donc je pense que né lolu tamit euh, espace public bi war nañ ci jangat les acteurs de l'espace public war nañ ci jangat ñu la violence sous toutes ses formes xamné avons likoy tabax du saganté du xasté waye likoy tabax xam-xam mhm. une élévation de la parole dans l'espace public ce vu jàmbur yeeg papa jambour yi ñuy espace public bi rafetal nekkin bi je pense que ne lool suñ ko defee tek wax ci xam-xam mhm. benn bés dañu am fi benn débat ma raconter anecdote la am invité bu ñëw ci plateau bi am ku ko wax Pape Djibril Fall boo demee moom ci xam-xam lay bëgg a teg wax ji waaye bu ko déglu ci xam-xam il faudra l'agresser bu ko déglu ci xam réew mi nag buñ demee ba mu egg foofu dafay poser problème war nañu mën a waxtaan war nañu mën a wax wax ju yiw te wax nga ko léegi raison de plus xam nga boo toogee di di waxtaan ay xalif général di la seetaan sa papa di la seetaan man sama yaay ak sama papa yëpp ñoo ngi scotché <laughs> waaw di la di la seetaan donc war nga ëppale sa bopp. Mhm. wax loo xamante ni soo génnee ñoom du am fierté ci yow. te nag ñoo ngi egg ci point yoo xamante ni ay point de non retour la loolu moo tax Chor nga gis keroog direct tuuru fa tuuru bu métti et ça n'a pas choqué les gens y en a même qui ont revendiqué ça y en a qui ont fait des communiqués pour défendre les uns et les autres alors que moment boobu bu ñu ci eggee te dinañ si delluwaat sur la problématique du vivre ensemble am na moment yoo xam bu ñu ci tollee kenn rek moo war a wax mhm mooy fa mbaxana donné ben lolou tamit njëriñu justice la parce que day fexal xol yi ñu situer responsabilité yi situer responsabilité yi même boy corriger nit doo ko corriger pour toroxal ko waye dang koy corriger pour mu mën délu ci wat ci société bi la prison même sert à ça la prison sert permet à la personne de revenir dans la société mais prison qu'elle waru far toroxé donc suñu réew yi dañu wara xamné xam réew du tiaxan té lolou it ci li ñu jël ci gàmmu gi la ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam moy nan nga wara a ak nit donte bokku len gis-gis donte bokku len xalaat moy l'imam Abdou Aziz don wax l'éthique dans le désaccord nan ngay def ba ak nit ci gis-gis ak xalaat té ngeen mën sauver l'essentiel qui est le respect mutuel et que lolu dafa commencer tout tumranke ñom ñep ñoo ngi artu jëm ci local yi mais gëw ma violence du baña am parce que local yi buñ buñ jëm c'est le citoyen qui devrait être au cœur du débat c'est le, peuple qui devait être au cœur du débat. Mais curieusement, ce sont les candidatures qui sont au cœur du débat. Ce sont les, les, égaux qui sont au cœur du débat. Mais là, non de violence a Violence bi tambalé lol, faut la tambalé. Donc ak yenen ak yenen yo il y a un besoin impérieux de revoir les choses. Dame waaw jërëjëf d'abord man damay ziar sëñ bi euh, xalif général de Tidiane euh, gis ni def na discours bu rëy. Mhm. ci wax ci waaw looloo tax loolu laa bëgg a wax c'est-à-dire mhm. euh, def na benn jàngat. Mhm. ci sunu système éducatif bi ñuy waxtaanee tey. oui ci discours bi mu wax d'abord importance su xam-xam njariñu xam-xam. ba noppi comme ni ko wax mu waral a laytaay lépp li nga xam ne mooy suñuy rapport comme ni ko Pape Djibi waxee sànq loolu moo am solo parce que divergence mënta ñàkk ci réew. nit ñi mun ñu bokk fu jëm bu ñu bokkee fu jëm ñu ñëpp sax réew mi sax sànku na. Hmm. mais nag lu ñu mën a wuutale lu ñuy wuutale nañ ko teg ci xam-xam. Hmm. xam-xam boobu lu am solo la te noonu la ko fësale ci discours am ba wax sax ni suñ système éducatif bi. élèves yi léegi niveau bi wàcc na wàcc bu jéggi dayoo loolu mu ko mm-hmm. waxee xëy na ci biir débat bi oui ñun dinañ mën a jàngat lool mu waxte muy lu leer loo xam ne ci xam-xam la ko teg mm-hmm. euh, lu tax su niveau bi wàcc ba mm-hmm. fi mu toll nii wax dëgg yàlla euh, ñi xam ni njàng di doxe ak surtout classement yi am au plan mondial ak rang yi Sénégal occupé gis nañ ni ñoo ngi wàcc wàcc bu jéggi dayoo malgré nag ñi kañ seen bopp

Euh, mu wax ci lu leer parce que nag ñun suñu réew ñoo ko moom euh, ay nit duñ jóge fële coalition euh, citoyenne le peuple ah, donc nit ñi mënuñu toog fii

wax sénégalais yi dañ ko nous mm. ñun suñu réew ñoo d'accord ñun d'accorduñ ci avortement médicalisé débat boobu nañ koy romb. Mm. ñun Sénégal dañoo bëgg ñu tëb ñu. Mm. dem ci réew yi ko nangul bokul ak sunu aada. bokul ak sunu cosaan bokul ak sunuy diine ñun loolu la wax te xalifa généraux yépp même position bi lañ am que avortement médicalisé mënul am Sénégal que ces questions d'homosexualité aussi nañ ñu tëb parce que ñun am nañ droit. wuute ak yeneen réew yi. loolu rek mooy mbir mi moo tax man vraiment dama sursauter quand j'ai entendu ce discours, mais responsable du Khalif général de et puis avec beaucoup de profondeur. Mm. Donc vraiment, euh, montagne tax boba de koy Sante de généraux di ñaan rek wax que mm-hmm. euh, parce que parce que mm-hmm. même position là, euh, musulman même position nous ñun 99%. waaye waaye nag 1 pour cent mënuñ loo xam ne ñun d'accorduñ ci nag. wala ay tubaab nekk ca France bëgg ñoo imposer leen. donc man li ma gëm mooy daal loolu nag ci sénégalais yëpp tënku ñoom rek mën nañoo wax suñu tur ci xam dara lépp lu yëngu yow la ñoo koy jiiñ yëguloo fekke woo ñu fent wax yu ñëw vamos para